Abdoulaye Saliou Ndiaye le président association de personnes handicapées de Touba. li ñu dajale fii tey mooy monsieur Dora Gaye nekk le coordinateur xëppe xool te loolu yaakaar naa boo ko waxee nit ki ci période bii ñu toll euh, mooy doon lu am solo moom it aussi bi ñu gisante ak moom mu recevoir ñu démb yaakaar naa yàggul matul 24 euh, 72 heures euh, boobaak léegi. bi ñu gisee ak moom ñu waxtaan ak moom li nga xam ni mooy suñu problème muy jafe-jafe handicapé yi su leen ci ay point yu bëree bëri ñu waxtaan ci moom surtout nag ci problème mu carte d'égalité des chances comme ni ma daan wax rek toujours euh, président Macky Sall nit ñi am na ci lenn ci ay waa këram ñoo xam ne ñu ngi koy dégg mais dégluwuñu ko 100 pour cent euh, monsieur Dora nag bi ñu toogee ñu waxtaan ak moom jox ko information yi ak situation yi nga xam ne moom la ñu dund mu comprendre loolu jël ay responsabilités ci kanamu collaborateur am bi nga xam ne mooy monsieur Ndiaye mu jël ci ay engagement ak centre bi nga xam ne yàgg na ma taxawal ko depuis boobu ba léegi centre bi taxawagul am na ñu dugal seen loxo. mais gaa demeegul ni mu war a demee euh, Dora nag jël na ay engagement te li mu wax it gëm nañ ko parce que jëf ji mu jëf euh, moo tax ñu gëm ni mu wax te it lu dul loolu yàgg na def ay activité ci région yi 14 régions mi ngi fi def ay activité ci turu plateforme bi ngir jàppale président Macky Sall président nag dafa soxla ñu mel ni Dora Gaye bu amoon ñu mel ni Dora Gaye li mu bëgg ci réew mi dana ko am surtout nag Touba gi parce que dafa am lu ñu présenté ci réew mi 15 pour cent de la population. kon am na loo xam ne mën nañ ko ci réew mi jëf ji door ngay jëf nag tax na ba ñun ñëpp mu convaincre nañu ñu euh, retourner incha allah rabbi pour jàppale doore ci plateforme bi nga xam ni mooy coordonnateur bi tey mi ngi koy doxal 100 pour cent loolu daal li ñu gënoon a ci lool la bokk tey également gis nga cinq tonnes de riz yi mu jox ñu ko une ton bi sëriñ ñi nga gis ñu daje fii sëriñ yi daara lañ ak ay imam ñoom laa fas yéene distribuer benn bi 4 tonnes yi ci des ñu distribuer ko les personnes handicapées. presque nañ lépp parce que suñu jugee rek accompagner leen ku ne handicapé xam ne war nga ko mën a jàppale pour que moyen de déplacement am gën a yomb kon incha allahu rabi dinañ ci jokkoo ak le président Saliou Ndiaye lépp loo xamante ne mën nañ ko ci pour que les handicapés de Touba dund ci jàmm nekk à l'aise mën a vaguer seeni i préoccupation di dem ak di ñëw nu mu leen neexee dinañ ko def incha allahu rabi ndax loolu mooy suñu cër président Saliou loolu lay xeex ba bëccëg subaak ngoon ba mu ñëwee toog ak doore it loolu la ko wax fàtte li nga xamante ne mooy handicapé Touba lenn képp moo ma ñor mooy information yi président war a am pour xam dundu handicapé yi moom Doro mu dimbali ko président yëg ko te je pense que wax na ko fañ ko war a waxee te kooku mu ko wax incha allahu rabi lenn képp moo ko ñor mooy jàmm président te lépp lu koy indil jàmm dina ko transmettre message boobu. kon ñuy remercier waat le président Saliou Ndiaye di rassurer waat les handicapés de Touba di leen xam ne la plateforme Xipil Xool li fi Macky def nekk na seen partenaire te partenaire bi du yem ci lii rek incha allah lépp loo leen yëkkati mhm. fépp foo leen bëgg a dem dinañ jug ànd ceeg yéen ba handicapé Touba yëpp xam ne. kii nga xamante ne mooy coordonnateur u plateforme Xëppil Xool monsieur Doro Gueye taxawu na leen ci turu président Macky Sall ngir que ñu mën a am lépp lu ñu bëgg